jërëjëf maa ngi soose di kotsu di technicien ci làmb maa ngi lay ziar di la bëggee. maa ngi lay bëggee bu wër Mamadou di la jox sa wàccuwaay di kontaan loolu lu nga teew fii suñu koñ tey jël si waaw di kontaan. Socé tey ngeen war a ëmb Ada Fass yóbbu ko fi nga xamante ne mooy arène nationale muy daje deuxième fois koo xamante ne moo ko expérience ci làmb yow kenn du werante sa xam-xam ci làmb ak sa sa sa technique loo ñu wax ci loolu. waaw dëgg la ñu ngi bëri ak bu doy waar sax waxoon man daanaan la sa làmb ay preuve am daan yu bëri adversaire bu ñu jox cër la minimis xeebuñu ko nag. adversaire bu ñu jox cër la waaw mais nag ñun am nañu argument yu wóor yu ñu jox booy yoo xamante ne bu ko appliqué rek yàlla mën na ko defal ci tour si combat bi incha allah. ndax mën nga ñu cee ñaamal tuuti ci argument yooyu. waaw mais si wàllu bëre rek xam nga comme kuy dem guerre moom doo doo joxe say say kii mais argument yi la parce que waa ji dugg na Fass duggaat Fass bëri na ak samay samay promotionnel bëri na ak Balla Diouf ba yoon ba rek ñaar yoon xam naa ko bu baax xam naa ay qualité bëri na ak yeneen daanaan xam naa ko bu baax waaw dañ respecté ko moo tax nga koy daan jox ko cër moo war te loolu yëpp def nañ ko si bopp booy bi. li ci bëree bëri dañu ne Ada Fass mbëru tànk la sos mbëru mbëru mbëru loxo la gis nañu ay adversaire am yi mu jaar fépp am na fu mu am na fu mu jaar am na fu mu jaar ak moom te avantage su Ada Fass ci combat bi lan la. Ah, Ada nag Ada moom Ada dafa yàlla dafa def moom mbëru lépp Ada day bëre tànk di bëre loxo boo ko song day bëre te moom day day day song boo xoolee moo jokkeel moo ko jël si moo tafa mbër moom moo jël si te te ñi ko jël si ñëpp daan si tànk kon kooku amul jafe-jafe si bëre xëy na xale la dañ koy yokk rek xamal ko ku muy bëral tamit mag la mag moom expérience na ko jox cër ak argument yi nga ko jox mu respecté ko bu ko respecté la yàlla da koy may ndam incha xeex bi amoo lenn lu ciy tiit tuuti parce que aada xaw na feebale foofu tuuti parce que mën nañu ne combat bu nga xamante ni moom la mujjee ñàkk digganteem ak euh, euh, Onde Fou avant avant ki nga xamante ne mooy Sarko li ko ñàkk loo xeex ci la bokk daf ko des daf ko desee man ndax travaillé na ngeen loolu ci diggante bi waaw si diggante bi aada baax a baax mais combat bi euh, maanaam ku ngay bëral mag la boo xam ne mën na ñëw ubbi woola si xeex fekk du dëgg si moom pour nga jóg rek moom mu def parce que ah, moom fooram mooy nga jóg mu mbaar la taf la te loolu fooram la xam nañ ko si moom bu baax a baax kon bu ñuy xeexa moom tam xam na naka la war a xeexa moom tam loolu loolu préparé nañ ko Mamadi waaw Adja lay jaajëfal gaynde gi jaajëf kontaan naa si yow jaajëfal defoon galaaj yi départoon ñëwaat da ñu ngi koy tooyal di ko sang di sotti ci oto bi ndox bu mu tooy. ndeysaan oto baa ngi noonu ñuy sotti ndox ci la Ada Fass war a dugg ndeysaan oto boobu. looy wax bu boobaa ñu la filma looy wax. Vamos. ndeysaan xar ga yaa ngi noonu ñuy génne ba léegi saaku xorom gis nañu ko ak ay mbuus yu def ay galaaj ay laytan mayu yooyu yëpp ñu génne ko ñu ko dugal ci oto bi bu njëkk bi 4-4 2 bi fees na ak galaaj ay 4-4 bi aada war a dugg muy bu weex bi bu blanc bi ñu noonu ay saako xorom yi bari nañ ci ndaw saf ndeysaan ba léegi loolu dafa mel ni ay ay ay doomu xaal bu ma jumalee ñoo nekk si biir saaku bu bula bi dañ koy dugal ci biir oto bi ba léegi galaaj ji jeexagul mu ngi génn par ndànk ndànk siège bu weex a ngi noonu ñuy génnee waaye peut-être ci la mbër mi war a toog ci ndox dañ koy jël na benn bi ay galaas lépp ndeysaan te mu tollu benn waxtu ci bëccëg jot na ba tegg ndeysaan juróom fukki simili ak benn maanaam li tere ñaari waxtu ñeent simili kese la ñu ngi noonu di génne ay saakum biscuit benn siwo cinq litres léegi ay saaku yooyu ñetti saaku ñu def mburu mais moo ci nekk ñetti saaku yi ngi koy dugal ci 4-4 bi Ada Fass war a dugg galaaj yi bari na ba léegi pare ñu ci xarga fuufa yi sol lu xonq yu noonu mel ni Ada mel ni Ada Fass soreetul isan am na ku lekkaayu noonu sol benn jalaade bu xonq yor ay xarga fuufa noonu ubbi na maalu oto bi dina maalu oto bi am lu ñuy liggéey ci biir wala boog lu ñuy essencé am lu ñuy essencé ci biir ndeysaan ba léegi ñu ngi ci dernier réglage yi Ada Fass war a génn ñaari waxtu ci bëccëg jot na ba teg juróom-ñaari simili ñoo ngi dugal ay saase ndox ndeysaan ginaar la kooku xam naa ci ñi yore affaire yi ci la bokk ndeysaan benn noonu bu ñu laxa benn morso bu weex ak bu xonk njax a ngi noonu ñuy dugal bu ndaw la njax daan ko muure moom lëma si bu weex moom bi <laughs> tey làmb ki affaire am ko tey làmb ki bagaasam xoolal yet bi xoolal yet bi yet baa ngi noonu ñu laxasi ko morso bu xonk moom itam ak euh, yenn bëñ yu weex waa jaa ngi wër moom oto bi yat bi la yor di wër oto bi ndeysaan wër na ko ba dellu si fi mu taxawoon woon a benn waay samp na ko samp na yat bu am lu weex la ak lu xonq morso bu xonq lañu ko laxasee ba noppi wëral ko ak ay wëñ yu weex oto bi moom George bi lii la naat la naat bu weex naat bu weex naat baa ngi noonu dugg na génnaat jël na benn carton ay saraxe doonu ay miskit yu teg ci benn laytan benn layu biskit bi guro ci nekk guro biscuit moom la ñu def ci layu bi am na ay sarax lay doon tabur yee ngi noonu ñu génne dugal ko ci 4-4 bi ba léegi gën bu ndaw sant dafa mel ni aada ngi waaj génn mel ni Ada Fass a ngi génn ndeysaan Ada ngi waaj a génn gis nga ko ki mu àndal noonu vis ndox BMW gi noonu di sotti benn bouteille dix litres yor ndox bu weex ñu koy sotti di wër oto bi Nez Kiis Ada génn gaa ngi noonu de vaillé bien dafa mel ni mbër baa ngi gudd bi di waaj a génn Ada Fass rajo bi ñu koy dimli ñu rek borom Ada Fass ñu koy jox benn butéel mu def soow ñu koy sotte ko Ada Fass ndeysaan mu ngi noonu ci débat déeb yi moom Ada Fass koy sotte ay butéel ak soow noonu nee na dama koy rendi moom Ada Fass mu ngi noonu tent bopp bi moom Ada am na lu muy wax ak moom moom sëriñ bi am na consigne yu koy jox moom sëriñ bi ndeysaan am na lu muy wax di ko déy Ada Fass Ada Fass a ngi noonu ndeysaan sol bu weex teg ci beneen yére bu amay train gëstamu na moom la Ada Fass a ngi noonu yor benn bitéy benn bijidu ko benn bouteille yu di litre bu arbitre bi Ada Fass teeñu war a benn teeñu ngeer yàlla na ko sotti nañu ko ci benn butéel ñu ko ci sotteel butéelu diirit ak benn butéelu ëlit bu def saafara bu xaw a xonq Ada Fass loolu ci débat déb yi ba léegi fii ci Fass ten tëjee moom Ada ñu koy sotti waat benn butéelu ndox bu diirit gàccoo benn morceau bu verte ba léegi teeñ baa ngi ci digg ci kaw bopp bi non non avance may ma kay ba léegi teeñ léegi teeñ baa ngi ci bopp bi moment d'avance saan delloo waat na ko benn ci ñi ay xar nga fuufam moment d'avance gën na benn butéy sotte kon na ko benn jiwu Mbaye Gueusseum Ada Fass ba léegi wat nañu ko beneen bu tey waa may saafara ndeysaan moom Ada Fass ba léegi fii ci Fass ndeysaan Moussa Dia Moussa lamba gi nii ko benn mu naan sik sotte kooko léegi moom Ada Fass ci Fass sàn waaw waaw bi njëkk bi da sotti benn bouteille saafara bu yor ay saafara yu xonq léegi mu ngi ci débat bi moom Ada Fass ale Fass maa ngi noonu ndeysaan léegi moom Ada am na lu ñu ko jox lu ko koy seq ndeysaan mu ngi sotteeku ba léegi moom Ada Fass nit mu génn ci kër bi ndeysaan mu ngi noonu ba léegi moom Ada mu ngi def ay tara tara xena naat bi moom Ada Fass tara xena naat bu weex bi léegi dootul yàgg mu ci biir oto bi pour jubbali arène nationale moom Ada Fass ngi noonu di yëngal supporters yi ne oto bi moom Ada Fass noonu di dugg ci oto bi ndeysaan bi ñaari waxtu jote ak fanweeri simili ak juróom ñaar la dugg ci oto bi moom Ada Fass bëli arène nationale Ada Fass mu ngi sotti sa talal ne dugg na ci oto bi moment de passe gi noonu jubali wutali arène nationale <laughs> ndeysaan